municipal seen déplacement bi. waaw ginnaaw xibaar bi nga xam ni moo am ci gox bi ba am fukki nit ak benn yu ci am lakk-lakk yu métti ba juróom-ñaari nit faatu lanuy ñun commune Dieuppeul Derklé conseil municipal bi ndegem ñi ñaa ngi jóge feneen di ñëw di masawu di indi seen ndimbali waxatuma la ak ñun looloo tax boobaak léegi ginnaaw taxawaay bi. tey duñu ñëwoon pour jaale si waaye indi suñu ndimbal aussi pour ñi nga xam ni ñi ngi ci lalu hôpital yi ñaan yàlla yàlla sifaay leen ba ñu wér ba dellu si ci ci njaboot conseil municipal bi yëpp tey ji ñu ànd ñëw ci benn kàddu googu. waaw euh, gis euh, ginnaaw jaale bi mais insuffisance yi am ci hôpitaux yi en tant que responsable politique yow ban jàngat nga am ci loolu. waaw xam nga wolof dafa naan daanu dajul suuf te bu lëg lekkee alum naka gërëme cooy nguur gi am na lu bari lu mu def te bu ma nee nguur gi ñun ñëpp la mais des na lu bari lu ñu war a def surtout ci wàll kër docteur ndax am na gaañu gaañu yoo xam ne moo xam ci mbirum accident la boo xaram ci mbirum lakk-lakk foog ñu am ay jumtukaay yoo xam ne mucc na ay dal leen fa mën a faje ak personnel boo xam ne faj forme nañ leen en conséquence pour ñu mën def liggéey loolu nag du tee ñu gërëm sant waa kër docteur yi nga xam ni ñoo fi nekk di def seen kéemtulaay kàttan pour wéral malade ya fa nekk en tant commune bi yan matuwaay ngeen jël comme lu ci jot am nii pour beneen yoon lu mel ni mën bañ fee am xam nga maire xawma nu ma koy léeg nit biram nit day seere sax wala biram daw mu naa seeti maire bi mel ni maire bi moo war a saafara lépp maire yi dafa am fu mu war a yem li ci jiitu mooy li nga xam ñun ñëpp di war a def mooy du mooy di teylu xam nga suñu réew mi boo mbirum gaz bari na lu bari luñ ci war a jàng man jàng naa ci barki démb loo xam ne xaw ma ko woon ñu ni boo gis bind nañ ci ay lettres A B C D A mooy premier trimestre bi D deuxième trimestre bi C troisième trimestre bi D quatrième trimestre léeg-léeg sa nga gis ginnaaw lettre yooyu dana am ay date mooy wane date de péremption wu bouteille gaz bi mais bu fekkee date péremption bi dafa jeex te kenn utilise wu gaz bi dañ ko war a sànni boo ko jaayee rek bombe à retardement xam nga loolu lu jar a xam ñaareel bi ñiy defar gaz. est-ce que wàccoon nañu ak yoon ci normes yi. pour def embouteillage bi. ak jumtukaay yi ci war ñun gis nañu suñ dëkkuwaay yi bopp koñ bu nekk biteel boutique nga fa di jaay gaz mais boutique mënul jaay gaz jaay mburu jaay soble jaay leneen ak leneen fii ñuy jaay gaz di fa denc gaz yi wóorul sax pour ñu dëkk ci boor boobu gis naa ay sareet yu yóbbu buteelu gaz dañ koy sàññee sànnante manu mel ni balu rugby bi loolu aussi musiba la am na si ñoo xam ne sax waane nañu baye dañuy jël di solal seen bopp gaz léeg-léeg ngay jënd ci benn bouteille boo xam ne ñëwoon ci gaz genn wàll gi yëpp dem na donc yooyu yëpp yu jafee surveiller yu jafee jël ay matukaay la li ci war rek mooy nit ki moo war a nite jot na nag nit ñi nite di def yëfi nit mais ku deful yëfi nit rek liy dal rabu àll yeeg bàyyi may dal te mooy mooy musiba te yàlla ñu ci yàlla musal Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. boutique la boutique jaay gaas